yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di ziyaare ñëpp tàmbalee ko ci sëriñ Baara mi nekk ci boppu njaboot gi di nuyu mbooleem ñi nekk ci ronam ci njaboot gi daje fii di fàttaliku kenn ci kàngami yoon wi ni ko sëriñ Saliou waxe di taaw bi yoon mu soxna Fatima di ko xam ne ku yeyoo fàttaliku la ndax li mu joxe ci ay bind xeet wi soxla nañ ko ba di ci di ko nafar di ci wan nit ñi yoon wu jaar lu am solo kon ñu ngi ndokkeel mbokk yëpp yam mbégte ci dellu siwaat ëtt bi ngir bokk ak ñoom dundal gi ñuy dundal bis bii di ñaan suñu borom lépp luñ fi def mbaax ak yiw yàlla na ko nangu te barkeel te jotale ci kilifa ya waaye mu baawaan ak sa njaboot gi ak sa ci yëpp ñu ngi nuyu baax kilifa yëpp ñu nuyu suñu mbokk mi ñu dendal di sëriñ Abo euh, ñu war a seq waxtaan bi kon muy xëy na teraanga yu joxe ak xam ne mbirum sëriñ Touba ñëpp ci lañ bokk waaye jàpp naa ne luñ fi bëgg a waxtaane sëriñ Abou mën na ko jot li mbokk yi xëy na bëgg yaatal ak xam ne soxna si ñëpp ko bokk kon ñu am bëtte di ànd ak fas yéene ànd ak ñoom euh, sëriñ Cheikh nag dafa waxoon ne bëgg ñu waxtaan fàttali nit ñi sëriñ Touba ak taxawaay bi mu amoon ci digg ma boromam am na solo lool ñu fàttalante ci mel noonu ndax jamono day lépp Serigne Saliou wax na ba léegi nit ñi dañuy mam wax li wax nag ne buum gi war a wël wàññi leen ni mi ngi ci loxoy borom xam-xam yi loolu anuma jëm moom mi ngi ci loxoy kilifa yi kilifa yi ñoo yor laaj ji war a wàññi ñi bañ tegu ci yoon ñiy jàng li ci téere yi doom ay dongay daara ñëw fàttali nit ñi mooy seen yoon li ñuy def fàttali la kon bu jamono tolloo fii baax na ñu fàttali nit ñi Sëriñ Tuubaa ndax yëngu bi li rëy rëy moom ginnaaw moom nag baax na léeg-léeg ñu delloo si nit ñi ñu xam li mu doon yëngu lan la fan la jóge woon fan la jëmoon ak fan la jëme woon loolu xam ko jàpp naa ne dara dimbale leen ndax liggéey bu barkeel liggéey bu rafet liggéey bu sont bu ko yàlla tawféexal moo tax ñëpp nangul ñëpp daw wut si ñëpp ko ci xel ci googu nag buñ ko taw jiwul léeg-léeg mën naa yóbbu nit gënoon ci histoire l'islam xam nañ ay nit ñu dem ba doon leneen seen cosaan bëgg la woon bëgg waa di baax bëggee day dox di màgg kenn taw jéego ko mu dem ba ëppi loxo ba doon leneen kon dana baax nag Sëriñ Tuubaa bu ñëwee wuutu yonent bi alayhi salaatu wuutu gaa ñu baax ñooñu yore lislaam bi raayam lislaam nekk ci loxo di fàttali lam nekkoon baax na rawatina bu ñëwee defal ci bisu taawam bi nga xam ne wale woon na ci moom ni mu bëgg nit mel ni mu bëgg nit mel ni wane woon na ko soxna Faty loolu tax li Sëriñ Saliou wax léegi daan na yabal na ne ko dem leen mu jàngal leen ak taalibe mooy ne def koo defaroon mu nekk namuse nekk santion ci nit ñi la war a mel loolu moo taxoon mu doon fi yable yabal fi ay doomam yabal fi ay mbokkam yabal fi ñu bari ngir soxna si wan leen yoon ñu war a jaar bu mën a jariñ sëriñ bi sëriñ bi nag mbiram mën nañ ko tënk ci ñaari baat yi wax ne moo ko gënal ci ay turam wax ne it borom moom bokkut muy al abdul dundam gépp ci ñaar yooyu la abdullahi la wa xadim ku leeral loolu wane nga sëriñ fan la nekkoon sëriñ bi jaamu yàlla la woon bu nangu ne jàmm te daraja yi gën a kawe ci daraja yi nag mooy nangul yàlla ne jaamu ndax saa boo ko nangulee ba yàlla nangu ko yow kenn féetatu la kaw ñooñu la borom bi wax naan inna ibadi laysa laka alayhim sultaan donte moom moom ñëpp ñilif ñëpp waaye teewul mu seppee ci seen biir mu wax ne yow seytaane samay jaam amul ñëw yoon te am na ci nit ñi yàllaa leen moom ñoo xam ne seytaane jekku na leen ba moo leen di xëyloo leen gont lool kon am na jaam ci biir jaam ñoo xam ne jaam xam ne jaa yàlla leen moom waaye jaami leneen lañ ñii jaami bànneex lañ ñii jaami adduna lañ ñii jaami alal lañ ñii jaami bakkan lañ waaye ñi ci doon jaam yàlla rek la yàlla soxla Sëriñ Tuubaa nee na moom Abdullahi la ci pas-pasam Abdullahi la ci ay jëfam Abdullahi la ci ay jëflanteem Abdullahi la ci ay meloom wéetal yàlla gi nga xam ne moo sos diine diine du taxaw te wéetal yàlla amul moom la sëñ bi jëmmal ci baatu awodiye boobu jàngal lañu ko ginnaaw bu ko dundee daf ko mu nekk turam yu ko gënal ci ay turam ngir bañ nit ñi moom ki doon ak li mu doon loolu nag bu jamonoy dox njaxas yi am rax bi di am jaar na nag léeg-léeg kilifa yi ni ñu def dajale njaboot yi fàttali leen Sëriñ Tuubaa moom fan la nekkoon ngir ci nekk fa fa la njëriñ nekk nit bu wootee dara ku ca bëgg a aw yoon la da ngay sóobu ci yoon loo mën a wax nag lu sa kàddu xumb xumb ngay woote féetee sëriñ bi ànd ak sëriñ bi bëgg sëriñ bi waaye lim yoon wi mu xàlloon jaroo loolu aw tur la waaye njëriñu njëriñu moom ki jaar ci yoon yi mooy jëriñ sëriñ yoonu njub yoonu wéetal yàlla. yoonu rafetal dëggam ak boromam ak dëggam ak i jaam yàlla yi yoon wala fi andi kon loolu jàpp naa ne am na solo loolu ñu fàttali ndax mbokk yi adduna mën nañoo wax ne lu fi yàqu rek mi ngi tàmbalee ci li yàlla moom ay jaam bokk boo xañ te yàlla réer lool moomeelam bi ci alxuraanu karim muy tudd lu bari di fàttali nit ñi ne moom mooy yàlla te lim bind lépp ngir bëgg nit ñi xam ne mooy yàlla moo tax bëgg nit yàlla moo ndax dañuy wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun ibaadatu tawxiid la nañ ma jaamu jaamu jox ma li moom xam ne man yàlla maa fi nekk lu fi yëngu maa ko yëngal ku am maa la jox ku ñàkk maa la xaj foofu la yàlla bëgg nit ñi ne li ñuy yëngu amul ko njëriñ yëngu yi ñuy yëngu ñoom jaam yàlla yi muy ay topp yàlla di def ndigal amul yàlla benn njëriñ du yokk dara dara ci nguuru yàlla nit ki nga xam ne it mooy buy ñeneen ñi mooy yàlla mënta wàññi yàlla dara moo tax ngeen gis bu sëriñ bi ñaan bokk na ci ñaan ba mu doon ñaan euh, wala wala tuaxiduhum bima la yanqusu wa lahum wahabi alladi la yanfa'u bu leen jàppee mooy gi nga xam ne lu mu rëy rëy maanaam du la dara waaye li nga xam ne amul la njëriñ ñoom ñoo ci njëriñu yàlla na leen ko may wala tuaxidhum bima laa yanfa'u wala humu habilladi laa yanfa'u bu leen jàppee bàkkaar yi ndax lu bàkkaar bari bari mënut wàññi yàlla dara ci def bàkkaar moo ci loroo waaye topp yàlla lu mu bari bari yokk yàlla dara waaye yow topp yàlla yaa ngi jëriñ kon suñu borom foofu la nekk Sëriñ foofu la ko tegoo ba mu ñëwee xam ne yàlla dafa bind nit ñi bind leen ci bëgg yàlla ak gëm ko ak doyloo ko mooy cosaan ci nit doomu aadama saabu génne yoroo rek génn na fitraam bi ko yàlla bindoo فطرة الله التي فطر الناس عليها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ñun ñëpp ak set ak mbaax ak bëgg yàlla ak gëm ko la jëlwaale environnement bu yàqu nag mooy yàq nit environnement bu yàqu mooy yàq nit moo tax lu am solo la nit ñi fi ñuy nekk ak li leen wër saa bu jagee rek doomu aadama yi mën a yaakaar ñoom jàpp waaye bis bu environnement yàqoo nit ak baaxam dana moo tax ñu seetlu sëriñ bi bokk na ci ak mën a yare bi mu dikkee bokk na ci lim gënoon a yittewoo wut di asaaliha te Tuubaa gi ñu nekk day ci sàlla barab la doon wut boo xam ne dana mën a baax baax boo xam ne loo fi defar loola sonn lool fi defar loola sonn kon mu njëkk amal barab bu jag ba nga xam ne nit koo fi defar dafa ko dana yomb te bu noppee yàqoo jaww jamono nag bu doxee ba lépp jaxasoo mooy jur nit ñi di doxee noo xam ne génn nañ fitra te yëguñ ko ña ngay wax ñu wax mu di ko def te fekk la leen wër mooy jeexital ci buñ ko yëgee ak buñ ko yëgul ba soppi leen jëlee leen ci fitratullah bi nga xam ne nit bu ca doon leneen loo xam ne du am kon loolu baax na mbokk yi bàyyi ko xel baax a xam ne suñu borom ci wéetal yàlla la bind nit ñi nit ñëpp it nag wéetaloon nañ yàlla ci alamul azal dañoo ñëw adduna kay seytaane man leen wala bakkan wala bii ak yàqu wër leen ñuy soppi waaye doomu aadama yëpp nangaloon nañ yàlla ne ma fi ne alastu bi rabbikum xaalu balaa la ñëpp woo ko xaalu ñëpp la waaye nag danañ ñëw adduna yar àndandoo yu bon ak yu mel noonu ak ñàkk xam dana génne nit ci lam façon bu fekk dana tax nit lam façon bu fekk gaa baax ñi nag seen liggéey moo doonoon fexe ba nit ñi liñ façon bu fekk Sëriñ Tuubaa ci loolu la doon liggéey ba defar ci ñu defaroon ci ay mbooloo kon lu jamonoy doxe nit ñi war nañoo teewul waat fàttali ko loolu delloo ci nit ñi te bàyyi ko xel te xam ne lislaam day wax ne ponk l'islam juróomi ponk yi li ci njëkk mooy shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah moo ci jiitu mooy ëpp solo ndax mooy sarto yi ci des maanaam fii nit ki nangul yàlla nangul dawul yàlla jeneen jëfam du baax kon taxawal julli joxe asaka aj màkk ak koor bala baax day fekk nit ki nekk ku seereel yàlla li mu doon nongul tawxiidam nongul Muhammad alayhi salaatu salaam ak risalaam kon loolu day wane ne lu am solo la loo xam ne ñu ñëpp wa nañ koo teg ci sunu kanam ci jéem caa dox buñ ko deful dañuy lor suñu mbokk lor ñeneen kon nañu bàyyi xel ne sëriñ bi yoonu wéetal yàlla la woote woon lu ngeen gis lu safaanoo ak wéetu yàlla. wéetal yàlla ak jox ko li mu moom bokkul ci woote sëriñ ak bu mën a yëg ñi gën a wéetal yàlla ci ñaari xeeti wéetal yàlla yi am ndax ci njàng leen dañoo xamal nañu wéetal yàlla tawxiidu mutakallimiin la ak tawxiidul aarifiin wéetal yàlla ki nga xam ne jox yàlla ay meloom ma nangul ko ne mooy yàlla moo fi jëkk moo su fee jóg te du fi jóg moo bind lépp yor melokaan yi man yëpp daje ci moom yooyu nga xam ko nangul ko yàlla loolu mooy tawxiidul takallum li nga xam ne nit ku mu nekkul ci yow nekku ab jullit am nag tawxiidul maarifa boo xam ne ñi tey àgg dëgg-dëgg bëriwul mooy wéetal yàlla ci bëgg wéetal yàlla ci wakiirlu wéetal yàlla ci doyloo wéetal yàlla ci yaakaar ak ragal loolu jàmbaari yàlla yi ñu ci yàlla moom la sëriñ bi tuddee tawhiidul aarifiin moom lay jàngale ci téere bu mag boobu di Masaalikul Jinaan foofu mooy bi ëpp solo te gën a jafe ma waaye sëriñ bi nag foofu la ma ne kon xam nañu xam ne ci sëriñ bi moom suñu borom mooy lépp mooy lépp te ci biir lépp boobu li ñuy tuddee bëgg li ñu bëgg ak yaakaar ak wóolu ak sukkandiku ak gërëm ak bëgg ci moom ci yàlla lañ ko war a def looy bëgg rek nga fekk yàllaa tax nga ci li mu gënoon ràññikoo bëgg yàlla mbëggeel goo xam ne képp ku mas a amal alaaka boo ko seetloo ba ci biir. na nga toll ci yàlla moo noonu noonu la ngay ci sëriñ bi ñi gënoon na nangul yàlla gën koo bëgg ñooy ñi gënoon a xëj ci sëriñ bi ñoo nekkoon ay àndandoo waaye nit lu mu gën a sori yàlla rek gën a sori sëriñ bi kon nattukaaye moom ci ak bëggam mooy ci yàlla lay dellu te bëgg yàllaa ko moom nit ñi dañ leen di bëgg ndax la ay nit yàlla lañ dañ leen di bëgg ndax lan yaakaar nañ yàlla ragal nañ yàlla ñu topp yàlla bañeet noonu lay def jëmm des ko bañ waaye aw doxin ak ñàkk rafetal diggante ak boromam lañ bañ ci moom ñëwoon na andir ñu bëgg yàlla boo xam ne desul tari wane ko ci aw dundinam waxal ne maha mahabbatil muxtaara ndax bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam bëggul rek indi Muhammad doomi Abdullah waaye rasulullah la bëggoon ndaw yàlla kon yàlla la bëgg ba lu yàlla tànn lu leen mu tànn ku bëgg yàlla nag mbokk yi bu dëggoo ci yow li yàlla bëgg da ko bëgg li yàlla bañ nga bañ moom la sëriñ bi wax wa yaa baahu wa loolu mooy bëggee ku dëggoo li yàlla bëgg lu ne nga bëgg ko waaye lu yàlla bañ nga bañ te jaam bi da àgg ci loo bëgg ci yàlla bëgg ko sa saw demee bëgg yàlla boobu la sëriñ Tuubaa nekkoon ci woo nit ñu doon ko dund di ñu soññee ci bëgg ñu bëgg yàlla. jël yàlla def ko suñu kanam muy suñu lépp waaye doy loo ko nag xam ne li yëngu ci kaw suuf yàlla ko kaw suuf lépp lu fi yëngu yàlla moo tax bu dëggoo ci yow ragal dootoo ko def bindee lenn luy ñëw ci àdduna rek ba tax nga ragal lu am ndax da ngay gëm ne qul lan yusiibanaa illaa maa kataba Allaahu lanaa lu mën a ñëw bu yàlla nëmmul mbaax si ceew daal bu yàlla nammee mu ak sa teew yi jarut moytu kenn mënta témoins foofu la sëriñ bi nekkoon di ñu woo foofu la sëriñ bi nekkoon di ñu woo mag ñi wuy si ko ko ànd ak sëriñ Tuubaa ci bëgg yàlla ak doy law bëgg la yàlla lim bëgg muy diine bëgg la ko mbaax bëgg la ko njub bëgg la ko ak mokk ba tax yooyu yëpp yemay sëriñ bi nit ñi doon ko dund di ko dundal rafetal loolu seen diggante seen borom ba koo ci dajeel xam ne yàlla rek lay dund waaye rafetal lool seen digganteeg boroomi jaam yi muy seen i njaboot seen i xarit seen i mbokk ak jaam yàlla yi ci des yëpp rafetal waaye rafetal seen digganteeg adduna bi ñu nekk ndax ay tool la yoo xam ne yàlla daf leen fi andi ngir bëgg ñu fàggu fi lu ñu dundee ko ëllëgee ñu mel noonu la sëriñ bi àndaloon ñooñu rek la ñoo ko topp buy sukk bu defar leen ba leen nag ñu ne ci dëkk bi tasaaroo ci réew taal taalu jàng yi fu ñu dem loolu mënu ko fàtte kenn mënu ko fàtte te day mel ne nag léeg-léeg yëngu yi am day dem a dem ba nit ñi fàtte cosaanul bi bu ñu xoolee Serigne Touba xéewal yu bari yi may yu bari yi li ko yàlla defal nit ñi yam nag ci teraanga yooyu ba fàtte li waraloon teraanga yi. loolu ci njuumte yu mag yi la ko ndamul teraanga nga tiim ko di ci jëfandiku ba fàtte li waraloon ñu taajal la ndam te bari na léegi ñoo xam ne ci xéewal yooyu lañ yem ba fàtte li waraloon xéewal loolu nit ñi war ko bàyyi xel Sëriñ Tuubaa daf doon wax nit ñi fexe ba seen diggante yàlla rafet liggéeyee mépp kooku la kooku la ko jëmewoon dafa dikk fekk jaam yàlla yi lenn lu la ñu nekk di yaakaar lu yàlla di bëgg lu yàlla di ragal ku yàlla mu wan leen ne leen yooyu yëpp jëmul kër yàlla rek a mat a yaakaar yàlla rek a ragal yàlla rek a bëgg ndax li kaw suuf moo ko moom ku fi jariñu mooma waaye ku lor dalit yàlla bàyyi ko kon kuy bëgg bëgg ko ku yaakaar yaakaar moom doy na misaal ci loolu noonu yi ko yàlla nattoo boole koog ñoom bu dee ay pexe ak i lijjanti ak bañ lu baax kenn féetewu leen ci kaw waaye teewul li mu ànd ñoom teewul risaala bi yàlla santoon mu di ko doxal musuñ koo mën a jàdd loolu benn sell yàlla ak doyloo yàlla ak yaakaar yàlla ak ñàkk a ragal yàlla moo ko may te bu doon keneen su wéetee wax leneen waaye moom ak wéetam ak wéetali ko mu yàlla barab bu mas a taxaw jaww ji ma a taxaw rek li mu jëkk a def mooy fàttali nit ñi ne fii yàlla ko moom loolu misaal na ciy gën a joxe mooy ñi mu doon sante ay dëkk di ko tuddee ay tur yoo xam ne lépp mën nañu wax ne wéetu yàlla la ndax day delloo nit ñi wax ci ne barab bi nekk yàlla ko moom bu sancee fii di jëkko daaru Xudduus te Xudduus di melo ci melo suñu borom di tur ci tur yàlla yi mu ngi fàttali nit ñi kon ku fi dëkk ci alal yàlla nga dëkk alal jàmbur nag boo ci dëkkee war a nekk ci lu neex borom soo bëggee soo dëkkee neex waaye njaboot gépp yi mu delloo leen ci abdullahi ñëpp jaam yàlla lañ ci melokaan yëpp ñu tudd boo ko seetloo mu tudd abdullahi kon fexe ba nit ñi seen lépp di jaamu yàlla loolu la sëriñ doon liggéey ci nit ñi ngir rek bëgg nit ñi jox yàlla li mu moom ndax ci jox ko lim moom ci la adduna jëriñ saa buñ ko xañee ab cëram mën naa yàq adduna te bu ko yàq day yóbbaale ay nit ñu dugg dara mën na jawal ndax moytu leen fitna joo xam ne bu dikkee du yam ci ña ko defoon ba taxaw fitna te laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassa borom moo ko waxoon subhaanahu wa taala kon loolu mbokk yi baax nañu bàyyi ko xel moo war a xam mooy ñu jàngal leen di wéetal seen borom dafa mel na ñun wéet googu dañ cee bàyyiwul xel danañ jàngal leen ñu alxuraan mokkal ko jàngal leen xam-xam waaye jàngal leen wéetal yàlla nag ci buntu yu leer ñu di ko dund pratiquement loolu day manqué lay la danga rek la noonu waaye loolu ay terroristes waaye àndalal ndaw li dundal ko ko def fexe moom dundal ko dugg ay jamono ay ay ay diggante yoo xam ne dana xam ne fii kat jàppee woon ne yàlla rek fi nekk sëñ Tuubaa traité boobu ci la àndal nit ñi ñuy sëñ Tuubaa ndox amu fi dara ñu ngi wan nit ñi ne nit bu nekkee ci li war a nekk yàlla mi ko moom bind ko xam na li jaadu ci moom te yàlla du ko bàyyi muy ñi ko nangu loolu ànd moom ci loolu dund fi ay at yoo xam ne dund bu méttee métti koo xam ne jéggi na day waaye tey ndam moo ndax xéewal yi am yëpp tey foofa la soxla ko kon loolu bokk na ci li war jaboot bu dul loolu maam yi Serigne Saliou di wax ci am léeg-léeg day dellu ci nit koo xam ne yaruñ ko wala jàngul jàng ak yaru bokkul nit dana jàng ba mën lef te du yaru nit dana yaru lool te du xam ñaar yooyu benn ba doomu koy yar ñaari tànk yooyu la taxawoo ci njaboot tànkub sharia ak tànkub xaqiqa sharia day jàngal nit ñu war a mel ak war a def xaqiqa day yar nit ba mel ni war a mel kon ñaari tànk yooyu la ñëwoon taxawee ko ba defar ñu war a benn tànk buñ ci neenal nag wala ñu sàggane ko jeexeete day fekk njaboot moo waral léeg-léeg ay nit di wax lu waxul mbaa ko def alhamdulilah sax man nañu jàpp ne lu bari ci wax yooyu ñu koy wax gëmuñ ay mbir moo tax ñu ko wax ñun ñëpp xamal nañ ne dëkk lay def bari nañ ci ay nit di wax ay mbir tax ñu di ko waxee gëmuñ ndax am na loo xam ne ku gëm moom jëm ci diine nit bu ko gëmee yëngal lay doon waaye. tolluwaay ak am foo bëgg ay jumtuwaay yoo soxla dana dugal nit ci leen nag mu def lu def wut ba mu wax ko yooyu nag li ciy musal nit mooy ñu yar ko jàngal ndax Sëriñ Tuubaa moom lu jëm ci diini charia ak wéetal yàlla képp ku ci wax ku turam jamono yi ngay waxal Sëriñ Tuubaa lu bëgg yaa ngi weddi sa ndax boo tiimee ak xasida di wax wala nga toog ci di wax barab baa ngay wet li nga wax xasida gi ngay jàng ni wet li nga wax so ñàkk a xam wala am loo soxla te ragal yàlla di des mooy jëñ nit ci yenn yi loolu nit war nañ ko xam ne loolu nag li ciy musal nit mooy dañ koy yar moom xam ne ay pexe du yóbbu nit foofu jëm moo tax jaam yi di wax naan la hawla wala quwwata illa billah pexe mooy yóbbu nit fa mu jëm doomu aadama yi dogalum yàlla moo leen yóbbu fenn lu ñu am yàllaa ko dogal waaye ay pexe yu rëy mënta tax nit ki àgg fi mu dogal bari na ci ñun nag ñoo xam ne liñ gëm mooy nit ñi liñ am lépp ay pexe leen ko kon ñoom nañu pexe ba def ay pexe ngir ñu àgg fi ñu ñaar pexe yooyu nag bu fekkee yàlla lënu ko xam-xam lënu ko yara bu mat lënu ko mooy waral léeg-léeg maamu yi am léeg-léeg nga wax lu rëy mbaa def lu rëy ngir bëgg bëgg nit dégg la dala coow bu ko defee nga doxee nit xam ne yooyu moo koy am solo kon dafa mel ne sas la woo xam ne man du ma ko delloo ci fi mu waaye dama koy delloo ci li tax mu xew sàggan ak neenal bu ñu neenal njaboot gi boyal leen bokk na ci liy jur nit ñi witt te bu ñu wittee leneen solo ci ndax nit ñi borom xam-xam dañuy wax ne natt bi boo ci deful dara eer ko waaye natt nekk nii dara dara nekk mënta nekk léegi nag su ndaw wittee te environnement bi yàqu faaw la leen sol yi am yëpp loo rek yooyu nag kon delloo si waat nit ñi ci ndaw ñi ñu delloo leen ci bi jàngal leen sëriñ bi jàngal leen ay waxam ak mbindam ak jëfam ginnaaw noonu naaw wàccoo na ma ak nañu gis wax nañu dégg bind na bàyyi fi yar na ay nit dañ mel noonu kooku ma wàccu mel waaye mbindam mi ndax ñu ngi koy jariñoo bari na xasida yi luñ ci daj di ko jàng di ci góorgóorlu waaye yow muy jàng xasida ak ni nga mel day safaanoo xasida gi ngay jàng loolu nit ki war na ko moytu li alquran waxoon ne bari waa na kuy jàng xadis kuy jàng alquran ci alquran koy rëbb am na ci xasida yi bari waa na kuy yëkkati xasida te fekk xasida koy móolu naan sa boppam ndax yoroo aw melaw yoroo ay jikkoom ni mu bëgg ab taalib mel ni meloon bay di nga jàngit boobu dëkkoon li muy wax da nga dem defaraat sa bopp loolu jàpp naa ne buñ fexewoon ba ndaw ñi xasida boo yëkkati bay boo yëkkati boo noppi man koo tekki tekki bu leer nañ nit ku ko am ca jëriñoo su boobaa yu bëri du am waaye bañ a mel nag ni mbokk mi doon wax naan ñëw ci benn kilifa ne ko béy bi lii la bëgg nga tekkil ma ko waaye nag moo wax maanaam ndax su ma génnee man koo firi sama firi moo xam ne dinaa ci mën a jëriñu lu mel noonu la waxoon day koo xam ne na xam baat yi rek bu ko defee seet maanaam mu gën a jub ci xelam mu ne sëriñ bi nee na te mbokk yi doy na ma lool ku toll ne Serigne Touba lim liggéeyal diine nga neel ko loo xam ne waxu ko dañ ko yéegal ci la yonent alayhi salaam waxoon ne man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaadahu mina naar ndax ma wuutu yonent alayhi salaam te boo xam ne ci du diine lay wax boo ko neeralee lu waxut loolu lu ne mën na ca te bari na ci noonu ñoo xam ne ñàkk xam. wala bëgg a dund dana tax ñuy firi waxi sëriñ bi ci anam goo xam ne jéggiwu doon loolu nag nit ki bu lay amee lu leer jàpp naa ne ñu yar ko bu ko ñeme ndax réew moom balaa nit amul fit rek lay réer boo ko wut du la ko ñeme mooy li borom bi wax ne innamaa yaxsha llaaha min ibaadihi l-ulamaa ñi ñeme yàlla ñëpp mooy dañu ëpp yàlla waaye yàlla kooku xam ragal lépp it noonu la mel. mbir moo xam mu ne da nga koo ragal di ko xam waaye loo xamul nag loo xamul nag man nga koo woyofal man nga ko doyal léegi nag am na nit ñoo dañoo taamu ñàkk xam ngir mën a dund liñ nga na li gën yooyu bokk na dafa bari lu wax dañuy def dara loo xam ne boo leen laajee waaw lii def foo ko jëlee nga sëriñ bi day jàngaloon. laa tafaalu shay'an bi ghayri idni fal idnu shartun fi qabuli shay bu leen def dara ci amu leen ci tey nag bari na ay jëf yu am ci yoon yi lool duuf lool ba ci ko noonu boo laajoon seen i waroon fi ñu ko jëlee dañ lay wax ne la nii laa ko yëgee yëg-yëg mu nag mu dikkal la diine nag mbokk yi deesu ko tabax ci ay yëg-yëg ndax kenn ku ne ak la nga yàlla bañ wér mbir ay yëg-yëg moo tax mu yebal ay yeneen di ay téere yëg-yëg kenn du wér dara moo taxoon it jàpp naa ne sëriñ bi wax ne laa tafaalu shay'an bi xamoon na ne am na nit ñoo xam danañ jéem a seen xew rafet lu ñu rafetlu am xel doyut ngir wombat nit ñi bu leen yàlla am xel doyut ngir wan nit ñi lu baax diine mooy wane baax te bari na ci diine loo xam ne xel xamul boo ko bëggoon a firi ci xel doo xam. loolu mat xam waaye sama yëg la rek yëg-yëg wax mbokk yi ab jullit ab ci ndigal kon looy def lu mu nuru nuru lu jag bu amul ndigal baaxul ndax laa tafaalu shay'an bi ghayri loolu nag buñ ko tegoon jàmbar ko bari na tey lu ñuy def ñun di ko réyal si problème doon ndax amul ndigal lu ko sos mag ñi fi newoon ànd ak Sëriñ Tuubaa leen nekk nañ fi di dund ba jóge fi di baax di roy Sëriñ Tuubaa te kenn ci ñoom mosut ak loolu mosut woo wax kon bu sosoo ginnaaw bi la sos ki ko sos fu mu ko jëlee kan moo ci jox jëlee loolu mat naa xam kon mbir yi na baax nit ñi xam fu mu moom jàpp naa ne nga xam lim digle doy na ci rek nga jàng lim digle. ndax dëgg la ñi ngi nett li nett li dafa bari bari boo xam ne day jafe nga xàmmee li ci nekk alxaf ak li ci nekk samin xàmmee ci li wér ak li dafa jafe léegi kon nag am na lu doy loo xam ne mooy lim bindal boppam te ñëpp bu xam ne moo ko bind te mu leer nañ lépp lu sëriñ bi bëgg ci taalibe yi mi ngi man damay faral di wax ne ku bëgg ne sëriñ Tuubaa nee na ma muy dëgg kenn duxul seen diggante fexeel ba jàng ba xam dem ci xasidaam yëngal li nga ne xasida boo yëkkati nii wax ak yow am na fu mu bëgg nga jëm fa am na lu mu bëgg nga mel ni kon soo génnee sañ nga ne Sëriñ Tuubaa nee na mën naa def naa te kenn du ko sa diggante moom ndax boo ko bind nga jot bu ñu jàngal ko sa bopp loolu nag jàpp naa ne mooy yoon bi gën a gàpp ngir te ngeen ci yoon bu dul loolu nit naa ngi ràbb ay xista di fekk xista bu am cosaan ñu dekkal ko wëlbati ko duufal ko yokk ci xam nga am na benn mbokk mu sa wax ne ci benn barab ne yéen law bay war ngeen sant Sëriñ Tuubaa ndax yéen dong la sëriñ bi tudd ci xasida yi xam nga ci tagot na soo wax sëñ la ahlil aw bi boo ko jàngee ci tasmin ahlil law bi lay doon mu te moom mi wax moo gën a xam ne sëriñ bi wax law sëñ bi jullit ji lay waxal bokkut ak ay denn denn xeet ñëpp ko bokk law yaa ngi ci biir séeréer san ci biir loolu li ciy doon nit mooy nit bu jàngut nit ñi jàng te ragalu yàlla danañ dund ci sa kaw jaay sa diine du defar seen àdduna te doo ko yëg su jàngut ba xam ne ko war a xam nit dana jàng bu ragalu yàlla jaay la jaay sa diine dafa àdduna te mooy yu mel luñ la nga gëm ko te fekk yow boo xamoon da nga ne sëriñ Tuubaa waxul lii bari na tey ay xista yu ñuy nekk yi boo ko taaraalee ci mbindum sëriñ bi sànni xista ndax day safaanoog li mu doon di ko jàngal léegi te li gën a doy waar mooy xista yi amul sanad dañ naan benn rek si ci jaarim sëriñ bi nee na te ñëpp xam nañ ne xadiis bu buñ jàng dañ la laaj diw nee na diw nee na am na ci yoo xam ne boo tuddoon ña la ko nekk yi boo bala ngaa daaneel ñu ne la sori kooku di nga xuyul moo tax yëpp la ñuy dagg donc sanat dañuy wax rek bi naan gis ci njaareem bi neen nañu doy loo mbindum sëriñ bi xamoon na ne jamono jii dana ñëw nit ñi di ko waxal lu waxal lu waxul su boobaa nag moom la ñu su ko falsifié ndax soo ko bëggee falsifié foofu mu feeñ am na ñu ko jéem jéem a soppi waaye ku segg xam ne la wax la bokk na ci li mu yàlla jagleel yàllaa ko jox duxal arabiya lisaanu arab ne yàlla da koo may kenn mësta mbindam gis ci lu ñuy déggal maa ñu ko wet kon lu leer lay bind lu fës lu am jël ñu léegi ne ko moom génération ñu nekk yii di xew yu ndaw yi bu ñu leen seetaanee bàyyi leen ak ñi ñëw bu ëllëgee danañ leen dugal ci yeneen benn su boobaa nag ku bëgg a mucc bëgg bu ëllëgee sa njaboot def di mujj fexeel ba ñu xam li sëriñ bu la woote lan la bu leen leeree rek ñoom am nañ ngànnaay lu wóor loo xam ne ku dikk jàmmaaroo yow ne la bi neen nga ne baax bay sëñ bi nee na ma xasida sàngam li nga wax foofu sëñ bi bu ne leen ak xista la nga rek woon yow ko nekk li kooku ku ko nekk li am ci saan bu dangaa dégg naa rek mosuñu wax loolu mbokk yi te mag ñi xamoon Serigne Touba dañuy wax ne Serigne Touba bu ma sa teew jataayam bu dee jamono waxtu reer la boo demee si kër doo reer ndax da nga fa ci lu lay delloo ci yàlla tiital na ba boo delloo leneen ngay tal moom waaye du xiif léegi nag dafa mel ne xis yëpp dañ dëgg la sëriñ bi ni mu doon insaare noonu la doon tafsiré waaye insaar nag. ci jamono bu nit nekkee ci at bi di am jàmm jiital insaan boppam ndax dañoo wax ne alxawf war a jàmm moo war a jàmm waaye bu dund jàmm jàmm ne jiital alxawf ndax mooy tax mën a moy bu demee ba naa ko ak dundam nag na jiital ak raja waaye yow dund dara jotu la jiital raja doo def dara bàyyil xel ne sëñ bi noonu la rajaaw jannatin bila taaati bi sunnatil maaxi xulurul yàtti kon wax sëñ Tuubaa yaakaar ne da nga tàbbi aljanna te toppoo yàlla topp goo teg ci suñu nee na ku ko def danaa woru woru mooy lan nekk ci dara jàpp ne dara la def daal ñu bari ci ñun nag mbokk yi ñu ngi yëngu ci mbir bu dégg bëccëg di ñàkk doon xëj jàpp ne dara la def puus ndax jógul fenn mbir bi ci nit de nekk day xam fu jógee xam ne lii sëriñ jor ko santaane mag sëriñ sàngam ña nga ca woon waaye loo xam ne tey boo doon wër delluwaay amoo benn delluwaay da nga naan maa ko jëkk ci man la tàmbalee bu doon lu baax ndax ñu baax ñi la jur xamoon nañ yooyu mbokk yi nit ñi ci yow te xam ne fi ñu toll ñi war a wax war a jóg jot jóg gi nag man jàpp naa ne du jógu dem ci rajo yi te ak dafay déclaration jàpp mu ne loolu la dellu ci daara yi dundal ko dafa la fa war a nekk dooleel waroon daara yi te jox leen ay moyens ngir ñu yar gone yi ba ëllëgee ñu mën a génne ñi daara yi Serigne Touba yi génne woon mën a génne ñu doon daal Serigne ay daara rek la santoon de génne fi ñoo xam ne ñoo taal ñoo leer réew mi kon war nañu mën a nag former ñoo xam ne bu ëllëgee ñu mën a wutu ñooñu jàpp naa loolu mooy yoon léegi de seen nag am na ci loo xam ne kilifa ci biir kër gone bu defee lu mu def dañ ko war a teew teew duma ay wax du saafara koo xam ne li ñuy def moom tey xam na ko nit bu xamul dañ koy xamal ku xam secteur bi dañ koy wàññi dañuy wax ne ñedd allawmu wallawmu muqiimun raajaun lil xurri waaye bu dee leneen li moom asa moo koy yen bu ko borom teewlu mu waxe woon maanaam nit ku baax daal nit ku jëm fenn bu jàddee yoon moo ko yedee bu am na ñoo xam ne nag ñoo mala yi ñoo yem seen bakkan la ñuy jiital lu lu waaye mën a wan seen bakkan nekk ci laal kooku nag aw yan ngay wut lu tolloog bànneexam ëpp doole bànneex ba mën ko doon bu dul loolu lu yàq mbooloo te li gën a doy waar fu ne mooy mboolem ñi woote yu mel nii mbooloo lañ àndal maanaam boo doon seetlu ci dëkk bi ak réew mi ñi nga xam ne tey dañ fa yor ay woote yoo xam ne dañuy wax xawul ndox maanaam man fu ñu wootee day mën a ñett te mbooloo la ñëw kenn duñ déglu ku ñu koy woote muy wax njaaxum yu képp dégg bis bu yàlla sàkk yëpp déglu am na benn waay boo xam ne ma dégg moo ne charia ñi amul ab sëriñ ñoo tax yàlla wu waaye boo amee ab sëriñ da war a sànni charia jàpp sëriñ daal ne suñ tubaab wax daal ne xoolal bu ñu ba ñemee fit bu ñeme loolu fekk waxi mag yoo xam ne lu leer naññ la nga fël si fay wax ji firee ko lu la neex di ca mbooloo gëm lu leen ba xas na nekk trop ci ñoom mënatu ñoo xam leneen nit ñëpp extra boo xam ne ali gindi kenn nit moo gën alal àdduna nañu xam ne it lor kenn nit noonu la dansé kenn naa tegu ci yoon jariñ mbooloo nga ba yàq ko yàq la topp ci moom na ci nekk ci bokk ci nga loolu bokk nañ bàyyi xel nañ bàyyi xel baax a jàpp naa ne waxati duugaat fii ñu toll nii nit ñi màmm gi dara mu ko delloo si dudul la delloo si woon ñu njëkkoon a màmm sëriñ bi daa ñëw jamono fekk ñu màmm mu samp ay daara di tarbiye di jàngale ba delloo si waat leen dañ nekk ay sant yoo ci baax yoon woowu rek mooy la naka waroon ñeent ñi doon mooy dafa nit ñi saa buñ sàgganee daara yi sàggane nañ ginnaawal xam-xam ginnaawal xam-xam am baax dara jëf ci xeet li fi des mooy lan bànneex bànneex nag kenn ak ku sa morom kenn ku ne day fëtal ne su ko defee lépp luñ la gaaral ci léegi nit ñooy nag si bopp jiwu mu sa leex la sa natukaay bopp boo demee ca wayaankat yi ki jàpp fi ne mooy sa leex mooy ku mën a joxe doon tey ci des yëpp xëtu na waaye tabe na rek pour sa nattukaay yooyu nag ñu joxee murid saadix sëriñ bi ko war a jàngale ci jàngale na kon kenn mënu di ko wax diw du mu ne loolu yow yaa koy wax nii nattukaay yi dañuy xool ndax li sëriñ Tuubaa bëggoon nit kan yow la ñëw ndax mi ngi jubal ndax mi ngi wéetal yàlla ndax mi ngi bëgg gaa yu baax yi ndax mi ngi nogal gaa yu baax yi ku ci nekk murid saadix doonte nekk murid saadix par lañ wax yow wutal ñi ko sëriñ melal ay benn benn lañ kon gaaw ndox jëm ca moo ñu war waaye daa tey melal sa bopp ne jàpp ne léegi xéewloo ci des li ngay xéewloo ña la fi jiitu woon da ko fenn boo ko lekkee ba mu jeex nga def ñi fi bàyyi lu ñu xéewloo te ñu bari ci lu nag la seeni maam ak seeni bàyyi dañ di woon lekk ci la nekk fi lekk bu ñu faatoo bu jeex tak seeni doom ci naan dafay fay la ñuy bàyyi buñ góorgóorlu duñ doon tus loolu nag lu ma tamoy tala mbokk yi lu mot a moytu la jamono jamonoy jamonoy xam lañ toll ak ubbi ko nga xam ne dara laqootu moo tax lu waay doon yokk ci itti mën ko yokk ndax mbon yi am ci àdduna yëpp léegi ñu ngi nit mën naa nekk ci biir néegam li gën a bon ci àdduna teew ci kanam loolu nag li ko ciy musal mooy teg ko ci yoon waaye doonatu di ànd ak moom bu déglu te ndax nit ñi mënoo ànd ak kon nañ yar gone yi te yar leen ci njàngum Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa mbaax ak njub ak bëgg yàlla ak doyloo ko moom la ñu yar nii doyloo yàlla ak bëgg ko moo ko musal ci biir noonam ba muy wax naa ak tur wa nafu min arrahmaani jamono yi metti la woon te kilifa ko xuppoon jàmbaar la moom ne ko ak tur wa nafu min arrahmaani laysa min al-birri wa nit ki bu gëmee loolu ñu bàyyi ko def léegi nag ñun liñ gëm mooy nit moo tax ñi jaay seen gor di jaay seen diine ngir di profité ci loolu di yàq nit ñi fexe ba jaay seen gor di leen wax loo ay njaaxum di leen mën a doon loolu mbokk yi bala ñu cee mucc bu ci bëggee mucc nañ yar suñu njaboot bi jàng leen maa ngi wax lu ci jub ñu jégal moom xam ne in uriidu illal islaaha mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah alayhi wa ilayhi uniib assalaamu wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh